jaa ngeen jëf mbokk julli ni mbokki taalibe yi ñoo ngi siyaare bu baax ma del si waat ci nga xam ne si ñu ngi commentaire Facebook ñii di commentaire YouTube ñii TikTok ñi like yi waaye ma leen di xamal kii mooy kan kii mooy kan mooy ki tàbbi ci kan mu rëy mi kan mu réy mi mooy kan mooy Cheikh Ibrahima Fall kii kenn ci yàlla kennal yàlla ba yàlla kennal ko ci jaam yi ku ko kennal doon kenn ku ko kennalul nag génn nga kenn ki kon nan kennal kenn ki ci biir kenn ki lépp di kenn ki di génn jëmm ju taxawara lépp dëkke waaru ci ñoom dégg nga Baye Cheikh Ndaw nag mi ngi nii jaamu yàlla bu ne na ma ko gisee ak na ma gisee waaye nag maa ngi seet yàlla nag ci jaam ñi bu baax a baax a baax maa ngi sóor sama digganteeg yàlla ci biir jaami yàlla yi waaye nag ñu bàyyi xel ne man ku commentaire Facebook wa ilaa YouTube wa ilaa TikTok wa ilaa like wax sa wax ju ñaaw. waa asalaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar gën gaa rafetu nuyoo gën gaa rafetu siyaar ñi xam nag yàlla na xam-xam dolli ko ci ñoom waaye ñi xamul tamit yàlla na ak gindeeku ñëw ci ñoom doole Mamadou Safal. départ nga départ na. ci ñu départ muy Cheikh Rafal départ am nag daa kon nañuy départ ci départ yu Cheikh Fall ndax départ yu mooy départ yegg yegg yeggale hee <laughs> Baye Cheikh yegg yeggale ay piis léegi lii encore une fois ab leçon la daa war a jàll ci barkeb Jalla Jalaalu xool yi laay wax nag juróomi normal la xaw ma juróom benn normal yéen daal séeru leen ba xam ñaata normal la rek bi ci njëkk bëgg a lekk lekk normal normal bëgg a naan naan normal bëgg a jonkan jonkan normal normal tuur ndox tuur ndox normal normal bëgg a bëgg a euh, juróomi normal yi daal faal ku xam booy boo nga xam ne lépp normal ah Baye Cheikh de kon normal la gun yàlla bu mu yéexoon ñàkk normal ak Cheikh Rafal nañu sant yàlla nag am sant luubal gi kuy luubal nag yaa ngi ci biir wax ji ñëpp laa ci boole yemal kuy luubal yaa ngi ci ji <laughs> la commencé ci kaw ba ci suuf kuy luubal yaa ngi ci biir wax ji ñamuk dégg danañ ma dégg waaye nag yàlla yàkkamtiwut dara moo tax jaamu yàlla bu muy yàkkamti dara rek waaw loolu la rek waaye bisa ngi ñëw yàlla dana taxawal jaam ñépp lépp leer nag moo tax lu waay di def ci àdduna nay leer bàyyi cheikh nay leer a ngi gaay nay leer waay <laughs> waaw ah, saf safoo rek saafante sàppalante ay waay sap sàpp ci Bamba ak Cheikh Rafal safal sap nga safoon maam sàpp li nga safoon maam continuer safoo maam ba àjjana ji gën a saf mooy maam maam ay fexee ah. noonu baax na faalo noonu baax na lay caan ku la bëgg bëgg ko waay ku la bañ bëgg ko waay lii la yàlla bëgg nii nii baax na faale faaloo ah. ni baax na kafe eh Tuuba lañuy naan gu am jar ni baax na ay ba aljana ñu nag sunu baay Cheikh Rafaal lamp daa bay maam si nu bu njaay nii na moon ngeen ma maa leen raw waa TikTok waa YouTube waa Facebook mu ni ko feesal de <laughs> lis mën ta feesal nag ah nel na meñceng <laughs> waaw rek léegi su fan ah, yii nag wax yàlla taarkalla damaa waaye léegi damaa doon kilifa ndax yàlla may na ma soxna daal. Ah. waaw xam naa da ngeen ma gëj gis nag ndax fan yii damaa fàttu. waaw waaye du ma leen fàtte nag fàttu naa waaye du ma leen fàtte nag. Ah. waaye ki nga xam ci ne mooy fat mooy mooy fatoor bu mag bi nag muy Cheikh ñu doolee fat ci boppam. ñuy fatante nag te bañ ci fàttante. wasalaam point laa ñaan gi mooy mu ne ma mucc ak xéwal ak kaaraange def rek dolliku bay rek bari lekk barkeel le jekku ndigal jekku njël jekku njël jekku ndigal jekk ci ndigal tey jekkal ku jekku ci ndigal ci a kii ndigal Cheikh Ibra Fall lamp ñuy sàkko ci mu ndigal ci noonu benn sikki sàkk waaye ci doon ëpp sëkkoor Fall gaa ngi fal gaa ngi fal gaa ngi yàlla ñu sarafal doole fal moom mi fal gi saay rek baatin kollu koddaay ak jógal te dem xam nga lu jugut moom awut yoonu dem <laughs> ah, eh, eh, waaw peace waaw peace waay waay kon kon daay ak jógal te dem ah lu jógul awut yoonu dem kon faal nay jóg te dem mën a doolay poos doolay ndigg mën a yëngal faal hee te bañ a yëng te bañ a yàcc te bañ a yeesal ay waay